sama sama professeur léegi monsieur le ministre des finances nee na il faut que ñu koy waaw di nuyu sa collaborateurs yi nga àndal yëpp ak yi di nuyu le directeur du budget sama collègue député yi fi may tàmbalee le monsieur le ministre de la justice 2012 cent milliards 347 millions cent dix 898 mille cent 960 francs CFA

641 millions 582 mille 893 francs CFA moom la leen jagleel li nga xamante ni moo jóge ñun ci suñu xaalis bi nga xam ne ñoo koy fay ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy dimbale ci suñu budget pour que ñu jox ko ministère bi nga xamante ni mooy ministre de la justice quel résultat ngeen def lan ngeen fi def 2012 ba 2020 ci montant bi lañ jox première créé créé yi condamné opposition yi deuxième traquer sa kilifa diine yi troisième traquer le magistrat voilà c'est le résultat monsieur le ministre ku ne xam na ni l'administration pénitentiaire seen statut bi nga xamante ni lu am solo la pour ñoom ak seen famille ba tey bii boo xa pareegul fan nga toll si ñoom monsieur le ministre 2012 ba 2020 la région de Diourbel amul tribunal bu ñu tabax. mais loolu injustice la xanaa foofu ay nit dëkkuñu fa wala li mu nekk maanaam li nga xamante ne xëy na mooy dëkku see Ahmadou Bamba te pour leen fa investir si lu mel noonu moo defu leen ko wala lan moo tax pour le ko amul leen fa investir pour que defal fa sax benn tribunal ci juróom-ñeenti at lan moo war a loolu depuis ba tàmbalee loué région du Diourbel ñaari tribunal yi nekk Diourbel tribunalu Bambey tribunalu Mbacké mais presque mën na quato milliards francs CFA ñu faj ay location mais kooku ñaar tribunal maa tabax mais yàq xaalis googu noonu gi am dañ ko war a maanaam arrêté monsieur ministre yéen a ngi wax ni jox ngeen li nga xamante ni mooy ministre euh, ñi yokk ngeen seen dund mille cent cinquante deux par jour mais bul fàtte ni li xamante ne moo nekk ci prison yi ëpp na maanaam dix mille prisonniers loolu presque dix mille francs par jour te yaakaar naa loolu ngeen koy jox appel d'offre yi ngeen def pour jox ko marché yi bul jàpp ne loolu lépp si ñoom la jëm ndax ñoom dañuy fay ay teew yaa te aussi dañuy def seen i kon jàpp naa li nga xam moom la ñu wax ne moom la ñu jagleel prisonniers yi amul monsieur le ministre li nga xamante ni moom laay wax mooy ministre de la justice bi fu njëkkoon a nekk jigéen la traqué na ba traqué maanaam bàyyi doomam tëj ko si kaso bi muy Mimi Touré kooku tey jàpp naa ne warul taxaw ci Sénégalais yi di leen wax lu dul baal leen ba tey fu réew mi toll mu moo ko dugal ba tax mu naan dafa bëgg nekk ambition mais kan lay kan moo koy fal bu ko Sénégal yi falee kilifa diine yi njëkk tëj si kaso bi muy xalifa xalifa yi tëj maanaam ñi nga xamante ne maanaam mooy ministère yi tëj ñu ñun ñii te loolu duñu ko seetaan tey duñu ko seetaan ëllëg kon kooku ambition bi muy wootee na ko bàyyi te xam ne kenn du ko fal ndax fu réew mi dugg moo ko fa dugal dem na sax ba Touba naan lu mu dugg Macky Sall ko si dugal te loolu du dëgg moo jël mag Omar Sarr ko si kaso bi te Omar mooy bàyyi doom loolu c'est pas normal moo tax ko loolu ngeen war ko xam monsieur le le ministre de la de la injustice le tailleur de la constitution mooy Souleymane ki nga xam mooy Ismaïla Madior Fall yow nag yaay ministre la injustice le traqueur de la magistrat yow kon loolu mooy li nga xam moom la lu tuddee ndax mënu ma nangu ñi nga xamante ne ni tey mooy magistrat yi nga xamante ne dañoo liggéeyal seen réew su si atte ba pare muy si CEDEAO atte su Sénégal atte ñu def commentaire ngeen ñëw du ngeen fi defee commentaire mais da ngeen bëgg tëj seen gémmañ wala lu ngeen bëgg en tout cas je vous vingt cinq personnes qui devaient répondre à la CREI seul Karim des dem nañu kon la justice est juste et équitable parce que moom ko. ma wax ne après avoir jugé jël nañ ko accusé ko jugé ko condamné ko exilé ko waaw ma ne goro président bi ne su ma of nag woo du ma wuy ji. doomu président ñu woo ko mu jóge France am nationalité française mënoon a a ñëw dagg avion ñëw ba li lépp fekk ko ci kon kañ la justice est juste et équitable d'accord nañ ci loolu. monsieur le ministre pour problème mu état civil je crois que la meilleure façon mooy ñuy enregistrer enregistrer les naissances au euh, devant la maternité pour éviter les les urgences foraines je veux savoir da nga wax ni bracelet électrique. je veux savoir la date kañ lay commencer ma ne monsieur le ministre est-ce que vous avez entendu le cri de cœur des femmes détenues dans euh, à la prison de Thiès nee nañ elles ont resté plus de 4 à 5 ans sans juger leen te ay mère de famille lañu monsieur le ministre il y a un centre d'accueil qui est à Guédiawaye centre la boo xam ne euh, il se situe à dans la commune de Médina Gounass wax dëgg yàlla ñu ngi def travail bu am solo di la les enfants de la rue di jàppale xale yi dafa tudd ay doom et tout ce centre mérite d'être appuyé da nga wax it ne dama ko liir ñu ne mandat de dépôt vous allez mettre fin au mandat de dépôt et aux longues détentions ah loolu de am na solo nag waaye màng ngi bëgg a xam nan lay demee monsieur le ministre je vous pose la question parce que dans le rapport j'ai lu qu'on a dit que la CREI ne fonctionne plus pourquoi beneen bi may wax nag lu ma ñor la te kenn sant ma ko ana Henri Grégoire Diop cey Henri après avoir jugé Karim Wade et le condamné on n'entend plus parler de Henri xanaa Henri amul humanisme un vieux âgé de 95 ans chaque famille a chaque père de famille a besoin de la fraîcheur de ses enfants Karim Wade ñu exilé ko pendant des années gisul baayam déggul baayam te ku ne xam na ne mag-mag la ñun ñi ñëpp bu ñu sañoon suñu njaboot day toog ci suñu wet mu nekk ca Qatar moom mu nekk fii ànd ak ngorom ak muñam nag kenn xamalu ko dara ma di la laaj yow loo ci xalaat ndax mag nga am ngay doom waxuma doom mais sët sax dafa neex ci ci ci ci maamum rawatina doom ji nga jur yow nag comme yàlla teg ngeen nuroo bopp daa nelu nga nelu ndax bëgg ñu di leen jaawale ma di la laaj loo xam ci suñu rakk ji même bu dul dara àddina loo fi gis day jeex monsieur le président rakk président Wade maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp gudd fan ak wér ak ñun ñëpp aussi ñu gudd fan te wér ndax bu ñëpp bu ngeen amee gudd fan te wér ñun amuñu ko aussi duñu jëriñ dara mais wax leen ci lii Ablaye Wade mag la yuuxuwul de man maa xam ne doom dafa neex ci xolu baayam 95 ans ku la ku la ko nekkal mu nekkal ñu baax nag di ay jaabur mais dañ koy jàpp comme ni ñu jàppee seen baay. dañ koy seet dañ koy toppatoo dañ koy waaye sunu li muy neex neex wolof njaay nee na sama ko gën a neex lu ko fi jar nag lu ko fi jar 45 milliards de Singapour ëpp 180 nag ëpp nanga amul njariñ te Macky fii mu toog gannaaw yàlla nag doolay bàyyi Karim Wade ngi bu déggee premier ministre dégg poste yam yor yëpp Abdoulaye Wade def na ci maa leen gërëm di leen sant un peu d'humanisme un peu d'humanisme baax na ci ministre man damay jëkkee sama wax ci jigéen ñi fi ko nit ñi daaneele foofu laa koy commencé dañu am suñu benn mbokk boo xamante ni dañu ko jàpp téye ko presque ñaari semaine ci diggante palaatoo jëppal te mu yoroon liggéeyu jaamur ndax lan ndax jëkkëram daf ko joxoon courrier mu war ko jox ku koy defaral ay kayit mu remettre courrier boobu jëkkër ji nekku fi ki ñu jox courrier bi daw na moom ci boppam ñu jàpp ko otage te nag du moom rek la loolu dal may laaj est-ce loolu ba tey ci àq ak yelleefu doomu aadama la bokk yow sa boroom kër bu defee njaaxum doo ko fekke bu dawee dem yoonam xamoo fu mu ne ñu ñëw jël la ci sa biir njaboot privé la sa liberté génne la ci sa biir liggéeyukaay jàpp la tëj la ci sa kaso bi parce que sa jëkkër moo tooñ te moom il est coupable seulement elle est coupable seulement parce que dafa obéir jëkkëram joxe lettre bi mu ko joxoon pour mu jox ko kooku loolu laa bëggoon vraiment ñu taxaw ci parce que bari na keroog ba ñuy seet baaragay gisuñu ko soxnaam la ñu jël yóbbu te loolu du du du lu normal defe naa ni beneen bi nga xamante ni bëgg naa ñu wax ci mooy euh, jigéen ñi nga xamante ni dañu nekk ci prison bi bala ñu cay dugg monsieur le ministre suñu leen jàppee ba yóbbu leen police li normal mooy ñu wutal leen avocat bu leen assister parce que sama kalaas bu bëri ñemewuñu police danañu wax ba wax lu ñu xamul damay wax ni bu ma kenn nettali ndax damaa ragal police ndax li ngay ndegam li nga xamul ngay wax mas ma la nga xam ne xam nga ca tuuti lu mu bon bon kon bala ñu leen a différer di leen yóbbu fenn bu ñu leen jàppee indi leen police bala ñoo wax ak kenn seen droit mooy nañ leen jox avocat bu leen assister te defe naa ni loolu xam nga ci dara te yaakaar na ni di nga ko def sama euh, sama collègue euh, Oulimata Maana wax na ko léegi douzième législature dañu dem si quinze jours du temps de gouverneur gouverneur euh, Sakho ñuy waxtaan mu xamal ni ñu ci région Ziguinchor bi am na ci école yoo xam ni ci Gàmbi sax dañ ko nangu loolu ça n'a rien à voir ak li ñuy wax fii waaye damay xëcc moom li mu la ni la ñoom ak frontière bi ni mu duggantee am na ca sénégalais yu bëri yoo xamante ni tey amatuñu sax kayitu sénégalais parce que tellement que yombul ci ñoom te defe naa ni loolu xam nga ci dara parce que bu ñu xoolee ci réew mi mën na ni 16 virgule 6 pour cent population bi kenn déclaré leen virgule 7 pour cent des mariages kenn déclaré wu leen 55 virgule 2 pour cent ci ñu gaañu kenn déclaré leen te defe naa loolu fi at